ah dimme yoroo ma ca ndaam borom nag ak meew yi kii mooy sama yaay kii kii amuñu fayam waaw euh, moo tax euh, lépp lu nu nekk lépp lu nu doon ginnaaw yàlla ak yonent bi sunu ñaari rawat na suñu yaay damay wax toujours man nag sama yaay génn na àdduna léegi ëpp na ay fukki at dëgg yàlla mu nekk euh, benn vide boo xam ne ba léegi bàyyi na ko si ñun ndax mu nekkoon waajur bu bëgg njaboot bu mun boole bu mun réconcilier famille bu mun euh, am taxawaay si njabootam moo tax euh, occasion la sax ma jox conseil dëgg yàlla bu baax euh, jeunesse bi léegi nanu fonk seen waajur yi man sama yaay ji si munoon di dundaat yàlla xam na ne su ma wooyee su may jëm si moom damay raam ndax xam barke bu waajur am si si doom soo amee waajur soxla woo takk gàllaaj yow del béggal say waajur rek moo tax euh, dëgg yàlla lu nu gën a metti damam si la bokk mais dañ koy sant yàlla mais lu nu gën a metti mooy fu ñuy amee ay responsabilité fekkewu ndax su ko fekkee woon dëgg yàlla dinañ ko bégal di ko sagal di ko yëkkati saa su nekk lu mu bëgg nu koy defal mais nag xëy na yàlla noonu la ko dogale mais di ma yoram ma ci njaam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjj na suuf sedd si koom moom ak sama waajur bu góor yëpp ni ngi leen di ñaanal bu baax